asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, mbokk yi ñuy seetaan ci GMT TV ñu ngi leen di ziar bu baax di leen béggee bu baax a baax euh, tey jii nag euh, ku ne xam na ne mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru koor di bis yi nga xamante ne bii waa daayira Muxaddamatul Xidma ñooy amal ci biir jumaa ji ay waxtaan di diine waaye itam di amal ay bernde yoo xam ne bernde yi yaram la yoo xam ne dañ koy berndeel mboole mbokki jullit yi ak mbokki taalib yi nga xam ne ñooy ñëw ci jumaa ji di jumaa ju mag ji tey jii nag ñu invité woon fi e, ki nga xam ne moo jiite mbooleem njàng mi ci département bu Mbàkke muy inspecteur e, Ndiaga Kane ak mbooleem e, inspecteur Ndiaga Ba ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal Euh, ci liggéey ba ak mbooleem enseignant yi nga xamante ne bii eh, ñoo nekk ca barab boobee ñuy liggéeyee eh, ñu di ko sant bu baax nag ndax ku ne xam na ne daayira bi ñu bari ci ñi fiy yëngu oh, ñu bari ay jàngkat lañ ak ay jàngalekat ku ne xam na ne eh, lu rëy lii ñi ñi koy taxawal ñëpp ay ay ay ay jàngalekat lañ ak ay jàngkat ñi ci dut ay jàngalekat ñi ngi nekk ci daara yi di jàng euh, danañ ci joxe firnde rek sëñ bu Bousso mi nga xam ne mooy secrétaire général u daayira bi moom mi ngi bokk ci ñi nga xamante ne bi ñooy jàngale ci département bu Mbacké ak mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoo yor secrétariat bi kon Serigne jaga euh, tey ji dañ lay dalal fii ci barab bi euh, di la laaj euh, mbooleem yëg-yëg ñi nga xam ne moom nga am ci bis bi nga xam ne waa daayira Muxaddamatul Xidma invité nañ la ko fii jërëjëf sëñ Assane donc maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu mboolam téléspectateurs yi euh, di rafetlu bu baax euh, invitation bi ngeen ñu defal tey donc ma ñëw ak euh, waa inspection de l'éducation de la formation yëpp muy inspecteurs yi nekk ci bureau yi ak agent yi nga xam dañoo ñëw ci turu jàngale jàngalekatu département bi di rafetlu bu baax a baax lu ñu fi gis parce que ñun béréb suñu fi ñëwee gis ni lu njëkk lu ñuy gën a taxaw surtout mooy mbiru lu ñuy jàngale ci xam-xam ñu gis ni fii ñoo ngi fi def ay conférence yu am solo yi nga xam ni ñu ngi yee nit ñi seen diine di yeesalaat di jàngalaat ñu def ko ci waxtu bi nga xam ni waxtu tedd bi la muy waxtu koor donc loolu ñu rafetlu ko bu baax a baax a baax te lu ma ci gën a bégloo mooy ñu ciy ñu koy def conférence ñu ci bare ay jàngalekat la mm. donc loolu am nañ ci mbégte bu baax a baax a baax mm. am nañu mbégte tamit bu baax a baax ba ñu gisee ni daayira bi ñu ci bëri tamit ay jàngalekat la maanaam ñoo ngi ci waar wi di liggéey di jàngale mais teewul ñoo ngi ci yoonu sëñ Touba di ci def liggéey bu am solo. ma ci cité surtout sëñ Abdou Lahad Bousso di la cité yow sëñ asan ak ñeneen ak ñeneen. pour dégg seen taxawaay rafetlu rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax donc yéen a ngi jëmmal si li ngeen li ñuy waxee nii wàllu ñoo nga xam ñoo ngi nekk ci école di liggéey yéen a ngi jëmmal seen taxawaay fii ci daayira donc loolu ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax ci am mbégte.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 maanaam ñëpp ñi nga xam ne nit mën na sànku ba mu des ku gëm yàlla. Mm. waaye tamit kuy jëf-jëf bu baax. Mm. donc man jëf-jëf bu baax boobu lii dama ko ciy boole. maanaam muy bernde yi. Mm. nga xam ne am nañu woor ba ngoon ñëw mën a xéewal donc loolu ñu rafet la ko bu baax a baax muy solidarité boo xam ni ñun ñëpp dañ ciy jàng ñu ñëpp dañ ciy jàng xam ni wax dëgg yàlla lii am na solo donc ñuy ñaan yàlla mu lawal ko exemple bi ñeneen mën ko gis def ko parce que dafa am solo carte d'identité maanaam jàppalante dimbalante yoonu murit loolu may dooleem maanaam jàppalante dimbalante ba lépp loo xam ni daañ ko bëgg a sumb ñu mën ko ñu mën ko matal donc pour wax ni lu ñu fi gis tey vraiment dal na suñu xel te am nañ ci mbégte lool di ñaan yàlla gën leen a dooleel ba lii ngeen mën ko di continuer lu ngeen ci def yëpp tamit yàlla def ko ay yiw yu yaatu ngeen mu nekk ay tuyaaba yu am solo yoo xam ne ñëpp daañ ci xaj bu ko defee yàlla mën ñu nangu suñu koor jégguñ suñu baakaar mën ñu euh, di ci profité nag aussi di delloo njukkal bu baax a baax sëñ Mountakha Mbacké xalif général des gis nañu taxawaayam mu nekk Sénégal yëpp ñoo maase xam ni lu muy liggéey ñëpp rafetlu na donc fu ñu koy seen ci xalif général mi ngi def liggéey bu am solo ci loolu. moom it ñu koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér gudd fan ak wér ba naal yi mu def yëpp yàlla mottali ko naalu xam-xam yi gis nañ ko dal na suñu xel tamit. Mm. yal na ko yàlla mottali. yéen yàlla gën leen a kàttanal seen daayira bi yàlla gën a ful dooleem si daraje Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam si daayira si daraje Xaadim Rasul donc loolu laa bëggoon sànni di leen jërëjëfal bu baax a baax a baax di ñaan yàlla gën leen a dooleel incha allah am nañu mbégte trop jërëjëf inspecteur ci kàddu yu rafet yooyu ñu ngi lay sant bu baax ku ne xam na ne dëkk bi buñ woowee ci biir jumaa ji koo xam ne moo jiite njàng mi e, ak njàngale mi ci département bépp Euh, loolu ku ne xam na ne euh, lu rëy la ndax sëriñ bi bi muy sanc dëkkam bi euh, dafa mel ne li taxoon mu sanc ko mooy jàng ak jàngale muy dëkkub xam-xam mi ngi wax ne yàlla na nga def dëkk bi muy dëkk boo xamante ne bi dëkkub xam-xam la ba faw kon bu ñu fi woowee ñoo xam ne dañuy yëngu ci xam-xam te xam-xam moom sétteewut benn xam-xam xam-xamu diine ak xam-xam boo xamante ne bi xam-xamu àdduna la rek la boole ndax diine dana am waaye xam-xamu àdduna itam luy jariñ la kon ñoo ngi lay sant bu baax ci wuy si gi nga ñu wuy si ñoo ngi lay sant bu baax itam ci eh, kàddu yu rafet yi nga xam ne yëkkati nga ko ak xam gi nga xam ne eh, ci liggéey bi nga bokk te it ñu boole la ci ñoo ngi la ci sant bu baax a baax a baax di sant mbooleem ñi nga xam ne ñoom nga àndal muy eh, bu ma ci tuddee inspecteur Kassé ak inspecteur Thiam ak inspecteur Thioban ak mbooleem personnel enseignant yi nga xam ne ñoom nga àndal ñëw fii tey wuy si daayira Moukhaddamatoul Khidma euh, ak ñi nga xamante ne bi ñoo nekk ci département bi tey jàngale tey yëngu ci wàllu xam-xam noonu nga ko waxee léegi euh, ñi koy def ñëpp ci département bi sëñ bi lañ koy defal ndax sëñ Muntaxa ku ne xam na ne sumbam yu yooyu mu def ci xam-xam lu jariñ ñi dëkk ci département bi ak ñi dëkk ci dëkk bi rek moo tax kon ñu koy ñaan mu yeggal ko mu yeggale ko ànd ko ak yéen ak mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoom ngeen séq liggéey bi kon daayira bi mi ngi leen di sant bu baax ci turu Serigne Afia Bousso ak euh, Serigne Abdou Lahad Bousso mi nga xam ne mooy secrétaire général bi ak mbooleem mm, membre yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci daayira bi li tàmbalee ci kaw ba ci suuf sant daal mënut a sant waaye ñu ngi leen di sant yéen ñëpp kon wasalaamaaleykum wa rahmatullah